adjudant di balde nek ci brigade spéciale des jeunes bu bon si walum eh, riposte xeexu corona bi lu ñu am bi euh brigade euh, des jeunes bu Tivaouane boobu ba léegi mu ngi taxaw tem di ar askan wi di sensibiliser askan wi di def seni activité de sensibilisation activité de BSD dug ci bir keur yi di wax askan wi di leen expliquer nu ñuy raxasoo parce que raxasu def sa loxo ndox ak saabu rek xoj xoj sànni kii leen xal yi loolu yomb na geste boo xamante ni li ñëpp mën a def la mais raxasu ndox ak saabu dafa am yoon raxasu dafa am yoon dafa am noo koy defee léegi nag ñun su suñu côté dañuy dem dugg si biir kër ñi expliquer askan wi expliquer waa Tivaouane nu ñuy raxasoo si ndox ak saabu te aussi gis nañ tabaar fakal la kër yi si bëri am nañ euh, dispositif de la lavage mais maanaam ñoom tamit farlu nañ ci lool lool lool def nañ ko xeex bi seen xeex seen xeex bopp parce que borom kër boo dem da ngay gis ñu def dispositif léegi nag dañ leen di expliquer ni ngeen di raxasoo dajalee leen tuuti euh, wan leen euh, ni ñuy raxasoo expliquer leen aussi li ñu war a taxaw par rapport ak seen i waxin par rapport ak seen i jëfin comportement yi ñu amoon bële passé avant corona bi ñu jëm ko changer nit don doon groupe di daje di mbooloo surtout si grand place yi di to ataaya ak ngonal gi surtout amna gaay gars yoo bu 18 jotté dañuy taxaw si ben grand place wala tok si ben grand place kay di nan ataaya loolu yëpp expliqué nañ leen loolu lañ ko wara a fu mu toll ni ba yalla defal ñu jamm si corona yi ba mu jàll ak jàmm ak salam duggu nañ ci kër yi wax lan té ensuite aussi pompé nañ ci euh, yar bi pompé nañ euh, Carrefour rond-point Carrefour pompe nañ marché ñaari marché ak euh, koñ jàkka mooy alentour euh, mosquée yi parce que lool bo xolé nit ñi bari ñu fa doon dajé nit ñi bari la lieu de rassemblement ay nit ñi la légui na motax ñu cibler ko parce que fofu tamit xamoo kan mo yor kan ak kan mo yor lan la yoré donc nak pour ñu foofu euh, mbolo ño fay dajé ñu profito dem pompe ko ensuite delluwaat aussi ñi fa nek dem garu ci def sensibilisation dem marché def fa sensibilisation ci ñaari marché yépp xam nga fofu da ngay tousé nit ñi lu bëri expliquer surtout noy raxaso euh, waxtaane len boba kenn ku ne bu démé kërëm tassaré xibar bi loolu lañ ci djublu won pour ñu mëna tousé ñu bëri parce que marché bi di nga am ño xamné yenen gaay nek ci bi dëkk bi yenen dëkk euh, lu berni ni Kër Ndiob boo yeneen dëkk dal ñi fay ñoo di jaay ci donc na ñooñu boo leen expliquer nu ñuy raxaso bu ñu démé dañ ko yóbbu si seen kër seen dëkk loolu tamit ñoom tamit ñu nekk suñuy représentant foofu tamit parce que comme li ma la wax rek xeex bi fu mu toll nii kenn ku ne dafa def xeexu boppam. cas communautaire mooy koo xamante ne dafa am ku la wàll te xamoo kan moo la wàll moo nag léegi nag loolu bu amee kenn ku ne war naa ne ah man maa ko yore parce que xamoo kan moo ko yore kan wa kan la ak fan la léegi nag moo tax nit ñi ñu ne kenn ku ne na ko defee boppam. tey jii nii mun ngaa takk sa masque mun nga bañ nuyo ko lañ ngan ko no ah dama lay protéger xam nga yaangi protéger sa bop diko protéger parce que déjà mom amul ndax yor nga ko la yoro ko jamono ji insamini matuka nii lañ wara jël ñu garder surtout distance bi nit ñi ñu gëna wañi encore plus ko mbolo yi dajé euh grand place yi ngone comme ngay gi doon gis gaay 18 h 6 h bu joté rek gaay tok di groupe o di naan ataaya ben benn benn xoo wala ben grand plat tok ci ben koñ lolou yeb dañ ko wara baye nañ ko nañ ko baye ba vraiment yalla defal ñu jam ak salam ba corona bi ki euh, jeex kenn ku ne delu wat ci ay activité am ci jam ak salam ngeen ñoo leen jàppale ci liggéey bi. ba ñuy jàppale ci liggéey bi moy wa nguur ngi surtout ñun comme lima wax euh, suñu autorité au niveau du service national de l'hygiène jox nañu ay matukay maire bi tamit aussi jox nañu ay matuwa té en plus aussi. Fini comme suñu représentant fi euh, le président de la république moy le préfet maa koy nuyu au passage euh, mom tamit japp na ci ak euh, suñu ministre de la santé moy li mooy ki may wax médecin chef district. parce que kenn ku ne amna fi représentant mon moo fi représentant mais ministre de la santé donc nak moy suñu représentant mom tamit dugal ci si loxoom la si mujj sax tay tay tay def nañ lu fukk lu toll fukk ak juróom ben dara tey lañ ko pompé beneen auto distribué sax bi ma ko nee ma ne ko dañoo soxla auto mu ne ma non non loolu amul problème ci la ma jox caabi ji mu ne ma demal chauffeur jox la caabi ji nga xool tamit yow yaay tànn sa bu la neex nga ànd ak moom ñu def ñaari équipe équipe bi jaar ni équipe bi jaar ni ñu dem liggéey ba wàcc ngoon toog te suba aussi tamit dañuy continuer daara yi si desoon waaw tey moom si loolu lañ xëyoon mais liggéey bi daal ñun dañ koy continuer dañ koy aussi di gën a nit ñi wax nit ñi gën koo farlu daal Thanks.